ñeent ba fanweer ak ñeent ci ay ministre yoo xam ne rek moom la daal di taxawal démb ci gouvernement bu yees Makhtar Cissé jamono ji mooy ministre de l'intérieur moom Makhtar Cissé nag fi mu toll nii kay wuutu na maître Sidiki Kaba ci bopp ministère de l'intérieur te fas yéenee gàlloo nag lu jëm ci organisation élection yi nga xam ne rek ba léegi si coow laa bi dellu seeg ni ñu ko xamee moom Makhtar Cissé di ab réformateur ab liggéeykat moom Mankeur Ndiaye yéenekaay bi ne dellu siwaat na ci affaire judiciaire ci yéenekaay bi di libération ma xam ne ni nag Makhtar Cissé démb la ko njiitu réew mi tabb ngir mu doon ministre de l'intérieur Ismaïla Madior Fall di directeur de cabinet bu président de la république Mankeur Ndiaye moom daal di dellu siwaat ci affaires étrangères ginnaaw bi mu nekkee nag ministre délégué auprès des ministres des affaires e et des sénégalais de l'extérieur docteur Annette Seck Ndiaye wuutu na kii di Samba Sy ca bopp ministère du travail du dialogue social et des relations avec les institutions yéenekaay bi di xam ne nag njiitu réew mi ma ngay gën a dëggal confiance gi nga xam ne rek am na ko ci docteur Annette Seck Ndiaye mi nga xam ne rek mooy présidente bu conseil départemental bu Sédhiou ngir bu ko defee nag mu mën a teg ay jéegoom daal di monter en puissance le quotidien yëglekaay addu jëmale ci carte gu mujj gi nga xam ne rek moom la président Macky Sall di jouer jamono ji yéenekaay bi dellu siwaat ci gouvernement bu yees bi nga xam ne rek président Macky taxawal na ko daal di tabb Makhtar Cissé ci bopp ministère de l'intérieur yéenekaay bi e e bi ñoom kay bale nañu leen bu ñu sukkandikoo ci l'observateur ministre yi nga xam ne rek dañoo jege woon amadu Ba yéenekaay bi ne ñoom ñëpp la ñu écarté fi mu toll nii nag li ñuy waxtaanee bokk na ci tànneef ak calcul yi nga xam ne rek moom le président Macky Sall nekkee formation bu gouvernement bu yees boobee nag fileeg ñaar fukki fan ak juróom ngir mu daal di jeexal mandat moom président de la république Sidiki Lader loolee la yëglekaay bi di Sud Quotidien xëy bind ci xëtam bu njëkk ne Mokhtar Cissé nag mooy jëwriñ bi ñu dénk wàllu biir réew mi Mankeur Ndiaye dellu suwaat na ci affaire étrangère Cheikh Omar Anne Doudou Ka Samba Sy bu PIT bokkatuñ ci gouvernement bi Ismaïla Madior Fall ñu daal di koy tabb mu doon directeur cabinet bu président de la république mu di ab gouvernement de transition bu maître Sidiki Kaba ci ñaar fukki fan ak juróom yi leen fi dese naka taxawal nañ fi fanweeri ministre ak ñeent ci les éco yëglekaay ña ngay xam ne nag képp koo xam ne rek pro Amadou Ba nga daal di nañ lay jëlee ci gouvernement bu yees bi yéenekaay bi ne nag loolee nag wane na ne daal Macky Sall ma ngay gën di bàyyi ki fi nekkoon Elimane jëwriñam ndax Cheikh Omar Anne Lat Diop ak Fatou Diané ñoom ñëpp nag nekkoon ay farandoo Amadou Ba daat nañ leen jëlee ci gouvernement bi ñi nga xam ne nag waxuñu woon dara ci Amadou Ba ñoom ñoo bokk ci gouvernement bu yees bi yéenekaay bi di la Soleil nag dellu siwaat ci gouvernement bu yees boobee nga xam ne rek am na fanweeri jëwriñ ak ñeent la juróom-ñaar ñu daat leen cay jëlee ñett ñu daat leen di indiwaat addu jëmale ak yéenekaay bi di Rewmi Quotidien ma ngay dellu siwaat ci processus électoral bi nag yéenekaay bi ne Karim Wade ba na gën a si bàyyeegul waa parti démocratique ak seeni alliés nag fas yéene nañoo attaqué nag décret bu Macky Sall bi ca cour suprême